الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بقي جنا بني سنت يسوع برم سبحانه وتعالى جل جيان تبي صلى الله عليه وآله وسلم دي سلم الجموع دين جنا نبوك يب يلا دفن لين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات أحدكم أريد عليه مقعده imma an-nar wa imma jannat fa yuqalu fa yuqalu hadha maq'aduka hatta tubasu ilayhi rawahu al-bukhari fi sahih bokk julit yi abdullah ibn umar yal ya yàlla kontaan ci moom bàyyam mu dégg nee na yonente bi sala salam nee na bu doomi aadama bi faatoo day di ñu koy gaaral dëkk waayam guddi ak bëccëg benn mu doon safara ba mu doon aljanna ñu koy ne sa dëkk waay maanaam sa dal ngi ba muy Buxaari génne hadis boobu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala boole ñu ci ñuy dëkkee aljanna yàlla musal ñu ci lépp li nga xamante ni daf ñu yóbbu safara moo xam wax la moo xam jëf la mbokk yi wa rahmatullahi wa barakatu